ami fidèle internet Sénégal 7 TV Sénégal 7 point com mbégte ak contentement ñu ànd ak yéen di leen recevoir si euh, entretien avec euh, tey nag euh, entretien bi dañ koy faral defee fii si diwaanu Tivaouane ginnaaw wàccaayu gàmmu gi ñu fekk fii directeur général bu agence de presse sénégalaise DG Amadou Thierno Amadou Sy maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay ñoon di kontaan ci daje yow fii ci Tivaouane xam nga ni Sénégal waxtu événement bu jotee journaliste yëpp daanaka dañ fiy jublu. ñu ngi waajal mawludul nabi di bésu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun agence de presse ñu ñëw daje kilifa diine yi euh, wax leen niñ ko baaxoo di defee euh, du noona su ma ko waxee noonu day xaw a jaaxal ñu bëri ndax agence de presse sénégalaise amoon na beneen taxawaay waaye beneen taxawaay bu bees la ñu nekk kon na ci taxawaay bu bees bi ñëw daje kilifa yi wax leen kat xar kanam bi changé na ci ndimbalug président de la république bien sûr ci la communication agence de presse sénégalaise bu bees la andi kon loolu baax nañu ñëw ñu wax ak kilifa yi wax leen ni léegoo lee ci jamono ñaar nit ñetti nit ñoo daan ñëw waaye dimension bi agence de presse sénégalaise am tey lu mu néew néew ñaar fukki doomu aadama dañ fi teew ci jamono yi ci jamono gàmmu ndax tey ñëw rek ci visite bi fukk ak juróom-ñetti agent ñëw nañu ànd ak man ci ci liggéey bi kon xar kanam bu bees bi agence bi am application mobile bi euh, hebdo bi ñu lancé euh, magasine vitrine ak plateforme bi ñu renouvelé loolu baax na sëriñ bi xam ko ñu xamal leen ko wax leen ne taxawaay boobu li ñu indi ñu ñaanal ñu liggéey bi yokk incha allahu rabbi ñu mën a servir sénégalais yi. Euh, de l' information aussi euh, taxawaay bi naka ngeen ko fas yéene amalee comme ni ngeen ko defee woon Touba euh, si édition ren. waaw ba ñu demee Touba def nañu benn magasin vitrine spécial hebdo bi tam ci lancement bi def nañ fa spécial ak si plateforme bi nombre de dépêches yu ñu daan def ci at ren gis nañu de dañ koy yokk mënuñ wax sax mbirum triplé daanaka benn boo jël topp ëpp na fukk lañ ci teg. loolu la ñu fas yéene def incha allah Tivaouane waaye boo gisee euh, mawlud bi xaw a am nu mu mel mooy moom itam beneen façon la couverture bi ak beneen façon ci liggéey ndax bu ñu fàtte ni c'est vrai que Tivaouane mooy capital bi daanaka euh, célébration bi fii la gën a fësee waaye bu ñu fàtte ni am na yeneen foyer ci Sénégal yu koy yu yuy def bis bu mel noonu te Tivaouane yaatal ci dënam lool. comprendre ko média yi comprendre ko média public yi euh, tey ñu ngi liggéey ci benn numéro spécial magasin am na ay page yu bëri yoo xam ne Tivaouane nañ ko consacré waaye bu ñu fàtte ni euh, boo demee ca Paal am na lu fa kilifa yi jotoon a def ci tarixa Tijaniya defaloon ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo demee ba Alwaar ca Fuuta am na mbirum Tijaniya boo demee Louga am na mbirum Tijaniya boo demee Kaolack ak feneen ak feneen donc liggéey bu yaatu boobu noonu. agence de presse sénégalaise mu ngi ci te incha allah dañ koy yàq ci mawlud bi ku ñëw Tiwaawoon di nga mën a dajeeg vitrine bi di nga mën a dajeeg hebdomadaire boo xam ne dañu ko koy consacré di nga mën a dajeeg aussi ay capsule vidéo yoo xam ne nañ ko nañ ko jox public bi incha allah. Euh, mu nekk lu am am solo si fàttali ni également bu weesoo wàllum tasket xibaar bi nga doon également nga bokk si euh, gouvernement bi euh, bokk également si coalition benn bokk yaakaar bu ñu fi dajee également dinañ mën a waxtaan si wàllum actualité politique déjà ñu gis choix bi nga xamante xamante ni euh, président de la république euh, daal na koy def tànn ki nga xam rek moo di Amadou Ba euh, coow li bëri woon lool kan la ñu war a tabbu ginnaaw xam nañ choix bi nag dèjà choix bi nag nga ko jàngate. waaw man dama lay wax ni dama bokk ci ay makiste lu ñu naan makiste makiste mooy ñoo xam ni dañu gëm vision président Macky Sall ndax man moo ma tax a politique musuma jënd carte de membre ci benn parti politique musuma xalaata politique président Macky Sall dama toll RTS nag ab journaliste di xool doxalinam ci Sénégal ma gëm li muy def ma jàpp ne war naa mën a politique tegu ci ay tànkam loolu ma dugal ci politique d'abord donc bu ci duggee tam aw ma ci xel ñaar dama ne lu mu wax loolu la ndax nit da nangu sa maître maîtriser la sa maître maîtriser la sa important ki lay jàngal mu maîtriser la ngay ànd ak moom ci ay décision maanaam munoo ne yaa may jàngal su ma ne A nga ne B wala yow boo ne A man ma ne B boo may jàngal boo ne A dama ciy jaar ma ne A boo ne bee ma ne bee boo ne x ma ne x boo ne weex na ma ne tal boo ne ñuul na ma ne kuk boo ne xonk na ma ne cur man loolu mooy sama diggante ak président Macky Sall donc man mosuma am xel ñaar ci ndax dafay wut ñu ngi doon wax ko troisième mandat man leen bu doon benn nit moo ko naroon topp muy wut troisième mandat dama ci ànd ak moom xooluma ay mbirum constitution moom laa xool lu mu bëgg ak ni mu koy defee ma gëm ni mënul def lu ñaaw ci Sénégal mënul yàqal Sénégal plateforme bi di Sénégal 7 mus naa fi wax en deux mille vingt et un ma ne deux mille vingt quatre yàlla rek xam lu xew mais bu dee président Macky moo ne dafay présenté damay ànd moom bu ma indilee boobu tam ab présentateur bu toogoon seen télé tuddoon Pape Ousmane Cissé ma ne ko yow Pape Ousmane Cissé bu dee yow la président Macky Sall tànn 2024 ne yaay sunu candidat dama lay damay ànd ak yow. donc man nekkuma gëmoo leen ci mbirum gëm-gëm man ci mbirum déglu Macky Sall tolloon ci fànn yëpp ba ñu ñëwee ci ci ci ci moom président Macky Sall mu tànn man dama ne coow li jeex na caaxaan faaxe liggéey moo ci des donc nag musuma nekk ci ay appréhension moo tax musuma toog ak ñii dina ay candidat la ñoo ay duñu candidat bien sûr amoon na temps dañu doon woote ay téléphone woo yenn yi waaw dama bëgg waxtaan ak yow ma ne man mënu ma waxtaan ak koo xam ne buñ la tànn lu may def ndax man damay déglu yow da nga war a déglu donc nag foofu la ñu toll ci mbir mi mu tànnal ñu koo xam ni sunu xel tam nangu na ci parcours am suñu xel nangu na ko ci ñu bëgg ko méngale président Macky Sall ci jaar-jaar ci doxalin ndax itam booy bàyyi leader di dem ci leader du bàyyi de c'est-à-dire que boo amatul leader boo téye ci wàllu politique ndax président Macky Sall à partir de 2024 nekkatul président bu Sénégal mm-hmm. donc bu ñuy ànd ak benn président dañu war a xool ci jikko xool ci jaar-jaar xool ci taxawaay ma am ay similitudes yoo xam ne gis naa ko si ñoom ñaar donc mu gën a mel ni lu xaw a dal suñu xel waaye li gën a dal sama xel mooy bëgg président Macky Sall li jàpp naa ne président Macky Sall ma tànnal cuune loolu dafa leer président Macky li may tànnal mooy ki mu jàpp ni li mu liggéey entre 2012 ak 2024 mën na koo àggaleel te bu ñu Amadou Ba. d'accord alors Thierno Amadou président bi mu renoncé a sa candidature yéen a ngi doon xaar à ce que mu tànn kenn euh, ndax yaa ngi doon xaar ñu tànn Amadou Ba par rapport ak ñi déclaré woon Abdoulaye Daouda Diallo Mame Boye Diao euh, Abdoulaye Diouf Sarr ak ñeneen ak ñeneen ndax euh, choix bi la wala li nga xaaroon. li ma la wax ne mooy man nekk moon ci calcul nekk moon ci météo jéemuma xalaat dama gëmoon samay bët fàtt samay nopp dégluwu ma woon nekk moon ci a commentaires kenn mësul gis sama page Facebook commentaire bu ma def ne ci président bu tànnoon diw xalaatuma ko calculé wu ma ko cest à ñii nekk candidat ak ñi ko nekkul xalaatu man cest à président yow bu la ñëwoon jël si Sénégal set ne la nekkal candidat damay ànd ak yow man fa laa toll c'est-à-dire ci mbir mi donc nekk ma woon ci benn calcul nekk woon ci benn supposition bañalu ma ko woon kenn bëggalu ma ko woon kenn dénga wax ji mhm. sa à dire que ko woon kenn waaye bëggalu ma ko woon kenn fa laa tolloon bañalu ma woon kenn mooy sama yoon nekku ci bëggalu ma koon kenn mooy sama yoon nekk ci yoon ci lu mu nekkoon mooy président Macky Sall ma doon déglu def naa ko ci élection législative dama dem Matam président Macky Sall liste lay indi liste bi wallahi gëm naa ko bëgguma xool sax tur yu ci nekk liste législative boo xam ne dañ ma ne président moo ko validé damay dem campagne liste bi mu gagné la ma woon député Matam yi xaw jéem ma ko woon sax xam ba HCCT jotee ma ne sama yoon nekk ci. conseillers municipaux yi ma yàlla damay ànd ñoom ñu dem voté ndax Macky Sall donc man foofu laa tollu ci ci politique bi. d'accord li nga wax nii am na si ñoo xamante ne waxuñ loolu parce que ñenn ñi xëy na d'accord ñu ci ni ñu tabbee Amadou Ba ku si mel ni euh, Mame jaaw moom bëggoon a nekk candidat ak ñeneen ak ñeneen alors euh, ñooñu aussi ñu gis si ku si mel ni Mame Boye Diao bi yëfi amee dafa rek daal di retiré wu si guvernement bi teg si démissionné si post bi nga xamante ni euh, moom lañ ko taboon démission boobu l'éclat éclatement la wala lan nga la woon indi comme par conséquent si biir coalition Benno Bokk Yaakaar. Mame Boye Diao il faut préciser démissionné par décret dañ ko wàccee par décret Aly Ngouille Ndiaye moom moo démissionné mais dama ne ku nekk ak ay tolluwaay ku nekk ak sa tolluwaay cest dire que man fi ma toll mënu ma commenter al keneen mënu ma commenter keneen euh, te gëm naa ni Mame Boye Diao dafa am fu mu teg peut-être moom engagement am man sama engagement dafa mu ko teg sama engagement mooy Macky Sall un point c'est tout bu doon moom la Macky Sall tànn damay ànd ak moom donc loolu mooy tolluwaay bi maintenant nag moom tànn na def yoonam. maintenant il devient un opposant man Macky Sall lay jàppale jàppale ma donc fu ma mun a fexee ba wàccee ko ba du am carte dama koy fexe muy Kolda bi mu dëkk ma bokk fa moom ndax sama wéjur wu jigéen fa la bokk muy feneen ak feneen ak feneen bés nag bu ko yàlla mayee xel mu ñëwaat encore loolu tam c'est pas trop tard c'est pas trop tard parrainage gi fii parrainage yàlla rek xam ñan ñoo jàll yeneen ak yeneen échéance ngi fi. donc nag moom bu demee parrainage mën na koo ta non dama ne parrainage yàlla rek xam kan mooy jàll. Ah, donc ma deviner kan mooy jàll ak dul jàll mais man li ma ñaan yàlla mooy moom Mame Boye Diao mu ñëw mu nekk addition bañ a nekk soustraction Aly Ngouille Ndiaye sunu mag très correct que nu respectons mu bañ a nekk soustraction mu nekk addition donc loolu moo am solo maintenant nag la presse aussi man dama àndul ak ñoom ci yenn wax yu ñuy wax naan Benno Bokk Yaakaar tas na mais Benno Bokk Yaakaar tasul mënul tas ci management bu ko président Macky Sall jox. benn bokk yaakaar bu tasoon da ngay dégg ay parti génn nañu mais lan nga dégg presse bee ko wax presque bi dañ ne benn bokk yaakaar au bord du gouffre au bord de l'implosion loolu laa gis ñu bind man leen fan lañ ko sukkandiku parce que Aly Ngouille Ndiaye nee na demul mm. parce que Mame Boye Ndiaye Mame Boye Diao nee na dem est-ce que dégg nañ Boun Abdallah Dionne dégg guñ ko est-ce que dégg nañu Abdoulaye Daouda Diallo qui sont très pondérés très posés et seen démarche man dama ko saluer parce que ça fait maintenant une semaine c'est vrai que dégguñu leen mais man li ma jàpp sama xel bu gàtt sama analyse bu gàtt mooy ils son plus proche plus près de la coalition que de l'opposition parce que seen pondération mu leen ko may donc nag boo bëggee nekk homme d'état da ngay dal bul yàqamti yàqamti yàqule. d'accord mais bu ñu gisee le même jour euh, Mame Boye Diao def déclaration am la le soir mu dem stade mu def vidéo ne dañ ko dañ ko tere mu dugg kii ko tere mooy mooy mooy Amadou Ba alors loolu est-ce que du jox dëgg à ce que wax ne éclatement am na wala wala wala. loolu yëfu xale la quoi loolu vraiment man du ma ko du ma ko commenté yëfu xale la taxaw ci buntu stade def vidéo waa dañ ma tere dugg yëfu caaxaan yooyu loolu yëfu caaxaan la. loolu yëfu caaxaan la. c'est-à-dire que il est venu déjà fekk marché ba commencé na euh, ñooñu nekk foofu ay portier portier du premier ministre quand même du ministre des sports ñi fa nekk ci buntu bi ñoo ko tere dugg moo xam lu tax ñu tere ko dugg ndax dafa tardé ndax leneen ndax leen ndax leen yëfu caaxaan yooyu franchement yëfu gonek politique la moom formation politique permettre ko loolu permettre ko loolu c'est ça la vérité ci tànku Macky Sall ci keru keppaaru Macky Sall la yaroo donc gis naa vidéo bi mais bant foo laa ko jàppee jàpp naa dafa doon blague te là c'est pas le moment on est très sérieux là. d'accord alors euh, alors bu ñu gisee également si yenn si ay commentaires si ñu si bëri si sénégalais jàpp nañ ne mbir mi scénario la euh, le cas de Mambo Diao euh, cas Aly Ngouille Ndiaye ni mu bàyyee ñu si bëri jàpp nañ ne réeroo amul si biir si biir coalition benn bokk yaakaar noonu naka nga ko jàngee. mais ñun ñu bokk si coalition bi loolu ñu ñaan yàlla man chaque jour may ay gént Hmm, man mu nekk scénario moo ma gënal yàlla nekk scénario nga xam ne dans une semaine deux semaines ils vont nous retrouver kon nax sénégalais lay lay lay doon toog. amul nax sénégalais yi euh, c'est-à-dire kenn mu leen nax ndax jour vote seen carte la ñu yor ñoom ñoo dugal ndax boobu fas bi lay doon wala beneen lay doon loolu kenn mënul ko defloo kenn le vote est individuel et personnel amul naxante maintenant nag man dafa la jàpp ni euh, Aly Ngouille Ndiaye responsabilité ak ak fam permettre ko muy foowee xelam Mame Boye Diao même chose président Macky Sall il sait que le moment est très sérieux Sénégal dafa am ay menaces yu grave yu pesé si réew mi sunu économie ay menaces pesé si sunu sécurité ay menaces pesé si sunu éducation ay menaces pesé si am ñoo xam dañ taxaw pour yàq président Macky Sall taxaw pour defar donc moment yu sérieux président Macky Sall nekkul ci tâtonnement nekk mënul nekk ci làmbaatu donc li muy def mooy équipe bu nangu ànd ak moom mu yow mu wuti scrutin bi dañu ko. si beneen boor ñu gis euh, ñu ànd ak Ousmane Sonko amal beneen une nouvelle forme de contestation par rapport ak euh, li ñu xewal si si euh, match de foot yi yooyu Sonko namu naa la ñu gis également loolee sax dem nañ ba koy ba koy tere loolu yow jàpp nga ne yoon la. mais loolu tam foo xam nga <laughs> dem ci stade di fo di way loolu fekk nañ ko si nawetaan yëpp yenn saa da ngay mbalat di yuuxu sa équipe adverse fo amul leneen c'est-à-dire ñan ñoo fa nekkoon ay xale la ay jeunes la. mais non mais non mais mais kan moo ko tere. kenn terewu ko c'est-à-dire que il faut pas. exemple am na benn benn benn championnat bu ñu bu ñu tubbee euh, compétition Ousmane Sonko ñu gis nañ ko gis nañ ko ñu gis ko si par communiqué quand même le sous-préfet daal di koy tere. c'est archi dafa jël ay ndogal yoo xam ne moom pouvoir moo ko ko may. d'accord ko ko may. sous-préfet dafa la wax ne waxul waxu da ngeen tuddee coupe bi kële de waxul waxu da ngeen wéy la de sous-préfet lan la si kayit bi. keroog dinaa ci benn télé man leen lire na bataaxal bi est-ce que sous-préfet wax na parce que da ngeen ko tuddee diw sous-préfet daf leen ne dafa am ce qu'on appelle menace à l'ordre public c'est-à-dire que marché boobu mën na am xeex am sous-préfet moom mooy président de la république zone boobu bu loolu amee non mais mais nawetaan xam nga ne xeex ci la fekk baax donc sous-préfet bu gisee dafa am menace mhm. mu gis ne lii ma enquêté man dama ko gis ne su demee xeex dafay am mhm. mais am na droit ne lii du fi am mais nag du ay sous-préfet du la bindal ci kayit ne la waaw par dañ ko tuddee diw par dañu yëfu foo yooyu mooy lan keroog gis naa vidéo RTS RTS preuve ay ingénieur de son ñoo fa nekk mm-hmm. mais attends mais j'ai les deux am naa vidéo boo xam ne bu clean bi la mm-hmm. journaliste RTS Pape Biram Bigué Ndiaye di interviewé euh, El Hadj Diouf c'était clean mm-hmm. mais ñu war na la beneen vidéo boo xam ne doo dégg sax lu Pape Biram di wax way yooyu ngay dégg mais yëfu fo la ay gone ñooy toog seen ordinateur di kaj-kaj di yokk volume ak wàññi volume ensuite son boobu noonu ëppul une minute ci biir stade bi donc nag am nañ liberté def ko mhm. ils sont très libres mun nañ ko fowe mais lii moo gën dem lakk ay bus wala taali kër. bokk ci kuréel yi nga xamante ni euh, mën nañu wax ne am na société civile euh, politique ak ay association euh, pour am yenn yu ñuy xeex ci réew mi gis nañ fa ni saa bu ñu déposé ab manifestation préfet da koy daal di rejeté ñoom nag naqarul nañ leen mel nag moo ko jàng. xam nga yéen journaliste dañu leen nax ci yu bëri F24 bul wax ne dafa am ay kuréelu société civile ak ay politique da ngeen F24 dafa am ay parti politique. c'est amul leneen. amul amul société civile dafa am société ñëpp ay politiciens lañu ñëpp ay opposants Macky Sall lañu ñu nekk F24 amul kenn koo xam ne tey mun na prévaloir d'une société civile crédible c'est des opposants donc nañu assumer seen nekk opposant xam nga réew bi lan moo ci métti mooy nga doon mbir nga bañ ko assumer nga bokk ci mbir nga bañ ko assumer kon xanaa li nga bokk dafa ñaaw boo bokkee ci ab parti politique nangul ne da nga bokk ci parti politique gis naa fi ab professeur d' université xaw ma ab ah, assistant université boo xam ne chaque fois mu ngi justifié wu waaw waaw bokkuma Pastef bokkuma nangam fa nga bokk assumé ko am na yeneen intellectuel ñun am nañ ay professeur d' université ay kilifa yu bokk si ñun mais dañ koy assumé mm-hmm. c' est malsain et c' est de très mauvaise foi mm-hmm. nga bokk ci parti politique di laaxatu si ay casquettes intellectuelles di laaxatu ci ay casquettes professeur d' université di laaxatu ay casquettes société civile donc nag marche bu ñu autorisé ak bu ñu euh, euh, interdire man sax yoon nekku si ndax marche jiw ma fekkewu ma marche man maa ngi tal lu yëngal réew mi di ko doxal loolu la tal am na ñoo xam dañu jàpp ne marche mooy doxal réew mi def nañ ko depuis ñaata at ana seen marché yooyu ñu fi créer woon mbirum euh, sunu moomeel histoire de pétrole ak gaz ils avaient créé ça mm. ana FRAPP France dégage ils avaient créé ça boobu yëpp ñu ngi doon yootu politique FRAPP France dégage début wala waxee ñu ne ñun politikuñu mais dañ jékki-jékki glissé dem ci parti dem nekk député mm-hmm. loolu mooy nax Sénégalais nag c'est ça la vérité. xam naa fi ñu koy waaj a jeexalee euh, day ñëwaat ak si euh, parti bi di Pastef ginaa sax bañ koo dissoudre ñoom dañ nañ daan nañuy euh, dugal recours au niveau de cassation pour rek ñu mën a yoon mën a rek daal di teggi li ñu leen teg ndax jàpp nga ne euh, Pastef dina am taxawaay si si si élection yi bu ñu gisee vraiment taxawaay bi nga xamante ni ñoom seen biir ba tey ñu ngi gëm ne Ousmane Sonko mooy nekk seen plan A ba Z. man ma ci dara li ma xam mooy parti bi di APR bokk ci coalition bu ñu naan benn Bokk Yaakaar suñu taxawaay tàmbali nañ ko ñu ngi liggéey ñu ngi remobiliser suñu base ñu ngi remobiliser suñu ay structure de parti jigéen ñi taxaw nañu cadre yi taxaw nañu ay TFR task force ñëpp taxaw nañu. liggéey pour wutal président Macky ndam en réalité du Amadou Ba la wutal ndam en réalité président Macky la ñuy wutal ndam ndax sax la ci moom muy génn présidence de la république en deux mille vingt quatre ñu tegal ko lu mu bëgg sax la ci moom ndax président Macky international la koy xaar di ngeen ci xam dara. président Macky Sall yeneen défi à travers le monde ñu ngi koy xaar adduna daf ko soxla mhm. donc nag buy pare mission. baax na fin de mission am ñu bégal ko mm-hmm. man dama jàpp ne sama liggéey pour 2024 pour bégal président Macky Sall la mm-hmm. jël Amadou Ba teg ko ci bopp réew mi ñun liggéey ci loolu mais yeneen parti ñu dissoudre rek ñu waaj a dissoudre yooyu xamalu leen dara. d'accord mais aussi kenn déggatu ko lan lan moo xew si biir ñu jàpp nañ ne am na ngeen di am na lu ngeen di nas seen biir yéen ñaar. ko déggatul noo noo koy xamale dara. Karim Wade li ma jàpp daal mooy en deux élection 2019 partisan bi taxaw nañ ne force dafay bokk. amuñu plan A amuñu plan X loolu tey mu ngi daal benn parti wax nga ko sànq force élection amul ministère de l'intérieur moo koy organiser ku nekkul candidat munoo bokk ku munul nekk candidat munoo bokk 2019 journaliste nga demal def sa ay recherche amul plan A amul plan B Karim Wade mooy sunu candidat loolu waa PDS waxoon est que mu yéen a bokk. voilà donc nag. Euh, malheureusement aussi seen alors ma bàyyi nga nga tàggatoo rek euh, ginnaaw bi ñu la fekkee fii si si Tivaouane. waaw sant yàlla bu baax a baax di waajal mawludil nabi bi di ñaan rek sunu borom yóbbuñ ci jàmm euh, burdu yaa ngi tàmbali. di ñaan itam lépp loo xam ne ñaan nañ ko ci dëkk yu tedd yi rawatina fii ci Tiwaawoon sunu borom nangul ñu ko may Sénégal jàmm euh, defal Sénégal jàmm defal ko tawféex képp koo xam ne sa xol wala sa xel yàq réew mi mu ngi ci yàlla na yàlla sore réew mi képp koo xam ne soxla ak sa xel guddeeg bëccëg defar réew mi moo la tax a jóg yàlla na la yàlla saxal ci réew mi jaajëf merci beaucoup